am tey ci BRT bi manque à boobu yéen naka ngeen naka ngeen gisee seen bopp ci yéen rabattement mën ngeen ko def quand même. Euh, parce que yéen amoo leen point de départ ak point d'arrivée mën ngeen mën ba léegi am interconnexion ak BRT bi. waaw bien sûr euh, même su fekkee ne sax jox nañ ñu ko ak joxuñu ko yëpp ñun ñooy def rabattement bi xam nga taxi moom mooy def rabattement partout ah. Mhm. fépp. mënoon na ci bokk ñu prévoir ay par exemple ay point de stationnement taxi par exemple ci. waaw tey sax loolu weesagut d'ailleurs. xam nga berte bi TER bi biñ koy biñ koy biñ koy tënk ba ni mu pare programme wu ci loolu xam nga taxi mais fi mu toll nii maa ngi face ay négociation ak ñi nga xam ne ñoo yor TER bi ba am na ay gaar yoo xam ne jox nañ ma ko pour taxi yi mën a def rabattement bi. Mhm. foofu laa jëm ak waa BRT bi parce que man ndaje yi ma ci doon fekk yëpp Thierno bi Aw directeur général bu CETID moo ma daan invité ci ndaje yi. moo ma daan mhm. invitation ma di ko fekkee. ba ni ndaje yi close ci hôtel Terre bu fii mhm. kon xam naa waxtaan yi li ko lal fekke naa ko dama fa doon teew nag en tant que secretaire général syndicat des chauffeurs de taxi di Sénégal parce que képp kuy intervenir ci transport ci capital urbain bi di nga tudd taxi mënul nekk mhm. c'est inadmissible foog nga tudd taxi kon loolu moom fa doon yóbbu mais ci kaw rabattement bi nun ñi ngi góor góorgóorlu pourtant di def ay effort di jënd taxi yu bees est-ce que xam nga ne diggante 2018 bi aéroport ubbee ak léegi yooyu presque 600 véhicules yu véhicule neuf yoo xam ne ñun leb nañ ko wàcc ko ci tali bi di ko dawal yu bees tàq zéro kilomètre. Mhm. mais suñu joxe rabattement bi dañ koy def te même buñ ñu ko joxut ñun clients yi ñun leen choisir pour ñu def rabattement bi parce que fu fi waaye dem ci coin yi taxi ngay jël. mais si 600 yooyu dafa yokk ci yi fi nekkoon wala dafay remplacer yi. yi fi nekkoon non dafa yokk parce que renouvellement dañ koy wax mais amagut fonds de développement des transports terrestres moo ko war def te defu ko. renouvellement dafa am ñu habilité pour def ko ñooñu la ñu taxawal ne nañu ko def mais gisaguma ñu def renouvellement am na nag ay partenaires yoo xam ne dinañu jënd seen ay oto wala ñu leb ko ci banques yi indi leen ñu taxaw jëmmal leen ñu ne fonds bay financé mais gisaguma man la fonds bi financé pour le développement des transports terrestres moo war a def renouvellement bi. Mhm. feeg loolu amul taxes yi fi nekkoon nun ñu ngi ciy def. le maximum 600 véhicules yoo xam ne amu ci benn boo xamante ne bii du chauffeur professionnel bi moom moo dem ci banque leb ko yóbbu caution ñu jox ko oto bi mu fay ko ci 36 mois kon ñi ngi def ay effort pour participer ci luy améliorer transport urbain bi bon li góor wax léegi doyen góor d'accord ma ci ak moom li tax d'accord ma ci mooy. ci ban ci taxi fi mu wax ne taxi amuñu problème mu xat ah kay yoon yi xat na dafa xat foo xam ne ab taxi bu jidlantee ak ab sareet mënul a jaar tata bu fa jaaree mënul jàll te taxi turu tur wi wuyoo na tu mbu mbu wuyoo na taxi lu ku ko ku ko bëgg lu gaaw nga bëgg kon bu ñu defee fi taxi bi doon jaar ci une heure de temps wala quarante cinq minutes nga réduire ko ba mu fay def deux heures de temps ko manque à gagner la. Mhm. moo tax li mu wax ne ci wàllu yoon yi taxi amuñu problème yoon waxat am na ñu ko am nañu ko carrément lañ ko am dañ ko am te ñoo ko ëppale sax parce que ñun mënuñu bañ a jaar foofu yeneen oto yi mën nañu bañ a teggi am na oto yoo xam ne dinañ daw ba wàcc duñ jaar fi BRT bi jaar mais taxi mënu ko. taxi fépp lay dugg te clients yi ñoo lay obligé yow nga dem client bi boo dem seen këram nii boo yorman client ba seen këram nii même pas 100 te àggoo fi nga war a àgg fi ngeen waxante woon amoo droit wàcce ko. Mhm. même bu doon def 2 heures de temps. Mhm. ba ñuy dawal contour loolu amante ba léegi loolu moo legal mhm. moo tax taxi ku ko soxla rapidité lay soxla moo tax boo wàññee yoonam am na loo ko xañ ci manque à gagner ci wàllu Ndiaga Ndiaye xam nga BRT bi demul fépp fi Ndiaga di dem moo tax dama dégg nga laaj sàng ne ko ndax Ndiaga Ndiaye est-ce que euh, ñi ngi leen di soxla ba léegi ndax dañoo bëgg transport bu na BRT bi nangam nangam. Mm-hmm. mais BRT bi demul fépp. boo taxawee PDC day am Ndiaga Ndiaye yoo xam ne Kër Mbay Fall la ñuy dem BRT bi demul foofu xam nga. Mm-hmm. am yoo xamante ni bii xam nga fu ñuy jaare Géejawaay la ñuy dem mais Ridis la ñuy jaare Pikine. Mm-hmm. client yooyu noonu fi ñu jëm foofu la Ndiaga Ndiaye yooyu jëm BRT ba fa mu jëm ña ci dugg foofu lañ jëm. mais boo jëm série dis yow wala nga jëm si xurunaat nga dugg BRT fa mu lay wàcce dangay jël njaga njaay bi taxaw Petersen di jaar ridis wala mu la yóbbu buntu Pikine wala mu yóbbu la Tëngéej te ligne yooyu dafa am fépp loolu moo tax BRT bi kenn du wax ne baaxul mais dañu ne euh, booy defar lii d'accord defar bi baax na de c'est bien bon dama ko wax sànq transport de masse foofu la àdduna toll pollution bi dafa bari embouteillage bi bari te lii muy rey ci pollution dafa bari ci nit ñi. mook industrie yi ñoo yem dañ ci d'accord pour ñu améliorer wu mais aussi dañ ne li nga fi fekkoon yow da koy defar ba ki ko yoroon moom du frustré wu dina gën a gis boppam ci li muy liggéey loolu lañ bëgg mais renouvellement de parc bi nag ci la ñuy gën a séntu état ba ñoo am oto yu bees surtout lu xeetoo ak taxi taxi dañ ko war a sensé jàpp nañ ne nag comme ñu ngi am résime bu bees dinañu am. taxi yu bees loolu la ñu am yaakaar. mu ngi junj sànq ñi nga xam ne ñoo leen di. waaw xam muy góor a. xam nga man li ma wax maa ngi ñëw. li ma wax. Hmm. je le man maa ne seen problème du yoonu xat et je le